cëtëtëtëtët li xew ci réew mi doy na waar de ay autorité yu dëkkee ci musiba maba kumba bu kenn mënta nittali sàcc wor njuuj njaaj ak luubalum xaalis jógogu fi de déedéet ab député bu l'Assemblée nationale bu Sénégal te jege lool Macky Sall moom la ñu jàpp ci mbirum njuuj njaaj gu rëy wàllum foobiyee xaalis bi buñ ko xaymaa mi ngi toll ci fanweer ak ñaar ci ay milliards mbir mi yemul foofu de député boobu di wuyoo ci turu Seydina Fall Bougazelli ak beneen woykat rappeur bu siiw sax ci réew mi ci fàttali député boobu moo fi nekkoon di defendre Macky Sall ci lépp lu mu mënti doon bokk na sax ci ñi nga xamante ne ñu ngi doon jéem a lëjbët troisième mandat bi waaye député boobu tey teg nañ ko loxo ci mbirum njuuj njaaj ak wàllum faux billets yi gars yi yegee ne ci loolu la xew ah, suñu police nationale dañoo xarañ fa lañ ko fekk ca l'Assemblée nationale ci waxtu bi nga xamante ne ci lañ doon def session ngir voter budget de boobu ci la ko gendarme yi fekk foofu daal di koy jàpp yóbbu ana nan la kilifa gi dundee lii Macky Sall bi mu jógee Maroc ba ñu dëy ko mbir mi dafa mer ba fut mbir mi yemagul foofu de dañ ko topp dañ ko topp ngir mën a xam fan la wànnent di mujjee ki gëtam